kon nañu màggal bay bara ama jóg leen màggal bay bara ama yéen dang màggal bay bara ama jóg leen màggal bay bara ama jóg leen màggal bay bara ama jóg leen màggal bay bara ama jóg leen màggal bay bara ama jóg leen màggal bay bara ama yëg leen màggal bay bara ama yëg leen màggal bay bara ama برأمرون الليل برأما برأمرون الليل برأما وأوقيتم المدى برأما وأوقوكم المدى برأما يربك لينكول باي برأما نين مقل باي برأما نين مقل باي برأما